léegi nag euh, euh, Sa Thiès na moytu loxo Eumeu Sène bi. Sa Thiès na moytu loxo Eumeu Sène bi di kàddu yi nga xamante ne kii di Serigne Ass xam borom lijaaba daal dina koy yëkkati kenn dootu ko présenté ci réewum Sénégal doon na borom xam-xam bu mag di borom xam-xam bi nga xam ne bëri na lu muy wax ñu koy daal di gis ba ci sax dese bi nga xamante ne Gaston Mbengue amal na ko naam sunu borom mooy sàkk te mooy faat waaye laataa loolu ay weer ci ginnaaw jàmm. jàmbaar jii di Serigne As waxoon na ni ne gis na Gaston wuy ji yàlla sunu borom li nga xam ne nag moo di wàllum gisaane sunu boroom moo koy may te may na ko li mu wax ci komba bi moom moo di Sa Thiès na moytu li nga xamante ni moom moo di kuwu Eumeu Sène ci tàkkusaan tay bile dem na sax ba yëkkati ay sarax ak ay tegtal wax ci bile combat waaye teewul ki nga xamante ni moom moo di Sa gis ngeen ko def na départam ànd ak magam ji ak ñi nga xamante ne moom moo di ay waajuram ci noonee nag ki nga xamante ni moom moo di Eumeu Sène ñaari soxna soxnam yile àddu nañ ca boobe combat wax ni combat tey bi confiance lañ ci daal di àndal mbokk yi ñuy ñaan ndam lii nga xamante ne bu dee Eumeu Sène la jik yàlla ko sunu borom jox bu dee Sa Thiès la jik yàlla ko sunu borom jox komba bi am ci bismillahi rahmaani rahim jeexee ci alhamdulilahi rabbi alamin di leen sàkk ngeen wéy di abonné ak partager suñu ay vidéo saay su nekk bés bu nekk nii lay demee